mawdon yi nga xam ne si moom la Serigne Touba euh, jot a euh, euh, développé wala moom la bind ci ci ci xasidaam yi bëggoon nga dellu siwaatal ma ci mawdon yi ndax ñii ngi wax Euh, sukkur muy wàllug sant ñu ngi wax ay julli ci yonent bi saa salaam wax nga ko fi léegi ñi ngi wax ay tagg euh, ñi ngi wax ay yeneen ak yeneen euh, ci ay mawdon yoo xam ne si bu ci nekk sëriñ bi wax na ci wax na ci wàllu fiq wax na ci tasawuf wax na ci lu nekk wax na ci euh, loolu tamit nga dellu siwaatal ñu ci rek leeral ñu ko ndax léeg-léeg da ngay gis koo xam ne si danaan man de xasida ak sindi di la la la la la la appo moom daal mooy sama xasida bañ ne ko boo moytul aw turam sax da cay doole sindi de ca ginnaaw nga xam ne kon moom digganteem ak sindi moom moom kii na lool lool lool téye na ko bu baax waaye fi mu ne am na loo ko ca doon laaj ci sindiit yi boo moytul ci yenn sew sew yi boo moytul du la ko mën a wax waaye moom daal bëgg na sindiit baax na loolu macha allah waaye nag léeg-léeg ñuy xam li nekk ci biir xasida yi ak mawdon yi nga xam ne si moom la sëriñ bi développé yaakaar naa loolu tamit solo lool. Euh, jërëjëf xam gi loolu nga wax noonu am na solo lool fexe ba bokk ci li bindoon fi muy. aadaabul mm-hmm. mm-hmm. xaare wal mustami'a teggi kiy jàng xasida ak teggini kiy déglu xasida loolu nañ ko bàyyi xel mhm. ki nga xam ne xam na ne bis bii bu ne rek bisu xadis xasida la mhm. bisu yëkkati mu neex la mhm. ba muy jógee ci këram la war a am nu mu mel moom ci boppam waajtaay woo xam ne moom lay waaje balaa jóge këram waajtaay woowa la ci jiitu moo di laab xasida yi nañ xam ne képp ku koy jàng noonu ko sëñ bi waxee léegi ña koy teewee te bokkuñ ci doomu aadama yi sax mooy ëpp boobu tuut ña koy teewe tey ay doomu aadama kon bala ngaa jóge sa kër na am yéene ju sell te laabal sa yére yi ngay sol mm-hmm. ni ngay laabalee sa xol la xol bi ngay njëkk a setal moom set wecc nga xam ne yàlla ak jëmmi sëriñ bi képp mm-hmm. moo cay nekk mm-hmm. waaye leneen du ca nekk laabal yére yi ngay sol ndax li ngay jàng xasida yi ngay jàng ku set wecc moo ko war di jàng boo mën a am gët gu neex boole ko ci dana nekk loo xam ne ci aadaab yi la bokk nga it fexe ba jàngin bi sellal gi loo ci man sellal gi luñ ci man jëmmi lim bi baax na lool lim lim bi am na solo lool waaye sellal gi moo ëpp solo maanaam góor góorlu ci mm-hmm. danaa jàng nangami xasaayit baax na de mm-hmm. waaye danaa ko jàng jàngin wa ko na ko sëriñ bi bindee woon ah. te duma ci yokk dara duma ci wàññi dara ndax moom day wax dëgg yàlla bañoon na yàq ki de ah, ah, lool <laughs> ndax di na ko lool moom sëriñ ndax buñ ko mosaan yàq sax bu naa xam naa du tax mu demee noonu sax de waaye mag di bu sañoon bu bindee ba noppi na mu hmm. bindee nga jàngalee ko noonu daana ko wax te it bokkoon na ci ñi ko daan jàngal ñun yàlla dogal na am na ci ñoo xam ne fekkee nañ leen ci jànkat yi nga xam ne euh, li ci metti mooy booba xëy na télévision yi ak li ñuy enregistré bareegut mm-hmm. waaye ki ñuy wax sëñ Mahmoud Fall mm-hmm. sëñ Mahmoud Fall ñu bari dégg nañ ko mm-hmm. xam naa génération yu ci bari gisuñu ko waaye ñu bari dégg nañ ko moom sëñ bee ko daan wax Mahmoud mu ñëw mu ne ko tàmbaleel barab sàngam mu jàng ba ci bërëb sàng mu ne ko yemal foofu waaw moom moom la daan jàng loolu lépp luy xasaay mhm. man de fekke naa mu daan ñëw ci sama kër waajur xaritam la woon mhm. lool fekke naa itam ay jataayam yu bari fii ci kër sëñ Fallou gii mhm. dafi daan jàng ajuma ajuma june daana dikk di fi jàng si ñu demee ba takkusaani ajuma la daan dikk fii ci kër sëñ Fallou toog sëñ Fallou toog nii jàkkaarloog moom mhm. muy jàng na mu doon jànge ci jamono sëñ Tuubaa waaye ku am fulla la woon nag koo xam ne bu xasee ba egsi bu mhm. fekkee mi ngi bëgg a jàng day xam ne ah na ma doon jànge ci borom rek lay jàngee mhm. nañu doon def it ba mu fi nekkee dongit lay nangu wala ma dem <laughs> waaw sëñ bi yaa ngi dégg mu ne waaw mu ne ko digal leen ko <laughs> bu mooy jàng kenn du wax kenn du jóg jëm fenn noonee laa ko doon jàngee ci kanamam kenn ñi mu wutoon a def lii ma wax kon nag bu ma xasee bay jàng ba yëkkati bu ma gis ku jóg bu ma dégg ku wax bu ma dégg ku def lenn kenn ku ne fa nga toog na fa toog ba ma jàng ba noppi nga xam ne noonu la koy defee te noonu lañ koy defee jataay bi ne tekk doo dégg dara mu ne nii lañ ko daan defee ci borom borom sax la daan wax moom borom di nii leen ko daan defee ci moom loolu it mu nekk loo xam ne war nañ caa bàyyi xel bu baax muy teggin yoo xam ne war nañ koo bàyyi xel ndax dafa am ñoo xam ne lim bi ñuy jàng mhm. lim bee leen gën a ñor ci mhm. jàngeen bi te boroom xam-xam yi dañuy wax ne sëñ bi sax ko wax mhm. alxayru fil madad laa fil adad alxayru fil madad laa fi laa fi mujarradil adad yiw yi li ci nekk li ngay jëriñu ci biir mu ngi ci madad bi maanaam li nga xam ne mooy secret bi jóge ci xasida gi di ñëw ci yow ci ni nga koy jànge loolu mooy madad moom ngeen di gis léeg-léeg suufi yi buñ jàngee ba seen dën tàng ñoo ne al madad madad loolu euh, xeetu xeetu defin la mu ne nag sëñ bi ne al alxayru fi lmadad laa fi mujarradi l adad ah. almadadu yanmu wa mujarradi l adadi xus ne madad day màgg day yokk day law di wéy waaye jëmmi lim moom mën naa yokk mën naa wàññiku waaye madad moom day yokk ba faw mooy sirru bi ci dekk bi nga xam ne moo lay dugg kon loolu itam ñu bàyyi ko xel ah. bañ a bàyyi xelu rek danañ jàng nangam ndax mën nga koy jàng nangam joo xam ne xëy na am na ci ñoo xam ne seenu jàngit dana doy waar lool. ba nga xam ne yow ci sa bopp dalay jaaxal. ndax kii bu doon jàng xasida gi jëmmi jëmmi tur wi rek. bu ko doon baamu di ko wax. ndax dana mën a gaawee nii. buñ doon wax mooy bu mooy bu mooy bu rek. yaakaar mooy sax dana mën a gaawee noonu. te loolu man dama ko daan waaye gis naa ko fii ci biir jumaa ji ñoo xam ne niñ koy jàngee daf na gaaw gaaw woo xam ne ah man damay jaaxal. te loolu day doontoon noonu. sëñ bi daawee su ko jàngalee noonu daawut nangu itam ku jàngee xasida yi noonu. loolu itam ñu bàyyi ko ci teg yi ni jàngin wi. sellal ko ndax benn baat bi képp wala benn bayit bi képp mën naa defar sa mbir adduna ak alaaxira waxuma la nag nga jàng xasida gi ba mu jeex takk boo jàngoon bis bi bépp nga jàng ci génn xasida la nga ca mën a amee mboo waxuma la yow sax doo ko mën a jëriñoo yow kese waxuma laa nag nga jàng lu bare bare bare kon loolu itam nañ ko ci bàyyi xel beneen bi ci tegu itam moo di euh, kenn ku ne wut sa xasida bopp tuddee ko sa bopp xasida yi moom na ko sëñ bi tuddee woon rek la tudd waaw moom daal mooy bu mooy bu la woon la tuddoon jës bu jës bu la tuddoon wakaana xaqan wakaana xaqan la tuddoon ah te mag ñi ko doon jàng ci wetu sëñ bi day kenn tuddeewu ko woon sa bopp mag ñi daan jàng ci wetu sëñ bi ah. bu bindee ba noppi ñu jàng ko ah. amut mel na mag muñ nettali ci taarix ah. ne moom day mooy moo mooy moo mooy moo moo moo féetewoo xasida sàngam déedéet loolu de siwut ci li nga xam ne mooy riwaaye yi bàyyi ko ci sëñ bi mm-hmm. kon loolu itam xëy na ak xër la ak bëgg lu baax rek mm-hmm. waaye nag ñu xam ne itam nag xasida gi moom na tuddoon rek ñu ko tuddee te it bul ca yemale sa mbir mm-hmm. ndax xasida kër mi ngi mel ni rek aw ñam woo xam ne mm-hmm. ay xéewal la xasida gi lépp ay xéewal la mm-hmm. bul yem ci genn xéewal gi rek fexeel ba xéewal yi yëpp benn bu ne nga laal ci wax dëgg yàlla waaw uh-huh. waaye yem ci genn gi rek uh-huh. ah mën naa am baax na waaye <laughs> fexe ba xéewal benn bu ne nga xéewlu ji daal mooy li nga xam ne yaakaar naa ne moo gën uh-huh. kon nag loolu itam ci teggin yi nga xam ne ci la bokk te kenn ku nekk fi nga toog bu boo bëggee war a laabaatit nga jóg uh-huh. boo ko mënee def nga dem defi ko uh-huh. kon loolu it laaj na barab yi nga xam ne ci la ñuy laabee uh-huh. ñu bàyyi ko xel yaakaar naa loolu itam yéen ñi yor organisation bi mat naa bàyyi xel lool ndax léeg-léeg ñaare mbooloo yi day bari fii ñun foofu ci daara kaamil ak li ko wër ñaare bu fekkente ne mbooloo yi jugee ni fi moom xeetu sobe su ne da nga ko fa gis xeeti sobe yu ne da ko fa gis te loolu lépp itam mat naa bàyyi xel mhm. ndax baka barab yi dafa war a laab mhm. ni jëmm yi laabee ni xol yi laabee mhm. barab yi itam dañ ko war a laabale noonu loolu itam bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy wax kon foofu ngeen di wax rawatina ci biir daaray kaamil fu mel noonu bu ñu fi duggee ak ci barab yi ci des yëpp ñu bàyyi xel ñi nekk ci biir barab yi kilifa yi kilifa yi ñu bàyyi ci biir barab yi teggin yañ leen doon jox ca bañ leen doon gis ñu bàyyi xel ci ne buñ fa nekkee it boobe la war a raw ndax nitu yàlla bu xasee ba toxu nekk ci alaxira boobee la gën a gis boobee la gën a xam boobee lañ ko gën a war a jox sax orma kon barab yu mel noonu tey jii fu mel ni daare kaamil Cheikh Abdoul Ahad ma nga fa biir jumaa ji sëriñ Saliou ngi nii sëriñ Fallou ngi nii sëriñ Abdou Khadir nga ne yooyu nit ñi bàyyi xel ci ne yow bu fekkee nekkoo di leen gis ak sa bët niit mhm. ñoom ñu ngi jàkkaarloog yow waxuma la sa jëmm waaye sa jëmmi xol mhm. ak la nga yéene ak li la fi indi mhm. ñoom xam nañ ko eh. kon teggin yooyu war naa gën a yokk bu baax a bax kon loolu itam bokk na ci li nga xam ne ñi ngi koy soññi mu bokk ci soññee bokki taalib yi ndax ku bàyyi na ñi ngi lay janloog yow rek da nga am neneen noo toog nooy toogee da nga am neneen noo waxee waaw ñu wattandiku itam mbooloo fu mu dajee mm-hmm. ñaare ñu naqari deret dana fa ne mm-hmm. ak ñooneen ñoo xam ne seen i wax du xaw a neex ba mm-hmm. ay werante dana mën na fa am te barab bi ak bis bi moom du werante du werante tax koo jóg wax ci leneen lu dul bis bi tax koo jóg yooyu itam yëpp ñu xam ne ci teggi nii xaside yi la bokk xaside yi képp ku koy ormaal Euh, la nga ciy wut mën nga ko am mm. adduna ak dang ko am mm-hmm. da nga ko am adduna ak kon nag nañ ko gën a yokk bu baax mm-hmm. te gën koo jox euh, gëdd gi nga xam ne moom la am uh-huh. te nag nu ñaan ci lépp mm-hmm. lépp uh-huh. sëñ bi bi muy wax ci aadaab ci euh, yéene yi nga xam ne moom la nit war a am buy jàng alquran wax na ko yéene ji nga xam ne moom la nit di am buy jàng xasida wax na ko yéene ji nga xam ne moom la nit di am buy wérd wax na ko waaye bi mu egsee ci xasida def ne bu ngeen di jàng xasaayit di maa chita lu leen soob lu leen soob rek yéene leen ko lu ngeen ci yéene te muy dëgg rek dana am kon ñu yéene ci li ci jiitu mooy bekkoor bi ak musiba mi yàlla jëlee ko fi ku ne yéene loolu yéene ci itam sunu kilifa gu tedd gii di Cheikh Mouhamadul Mountakha mm-hmm. yàlla may ko fan wu gudd lool yàggal ko fi lool jox ko wér-gi-yaram mm-hmm. ba li nga xam ne moom la yéene lépp mm-hmm. yàlla eggale ko wallahi buñ ko ci ñépp nañ ko yéene loolu na bokk ci seen yéene yéene it ah li mu yéenee defal Serigne Touba ci dëkk bi ak ci réew mi lépp sotti nam ko bëggee xam ngeen ne it ah jëmmam doy na sëkk royukaay jëmmam doy na sëkk cheikhul mu cheikhu tarbiya mooy jëmm ji nga xam ne heure boo ko gisee rek gis nga cheikhu tarqiya da defaru ci moom balaa wax ak yow da defaru ci moom balaa wax ak yow ca teggin ya mm-hmm. ca pëstéef ba ca melowa noonu lan war a xoolee suñu bopp di ko xool di ko roy ci moom kon bokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci bëggoon a wax di ñaan yàlla nag ci bis bu ñëwee yàlla sotti xéewal yu bari lool ci réew mi réew mépp ak réew yëpp ak adduna sépp xaj nañ ci ñëpp irham jami alwara jëm waxoon ba tey lii bu ñëwee na ci yàlla taw taw bu yërmande ci adduna jëpp lépp luy musiba wala muy balaa na ko xasida yi yóbbaale mu dem te dootu del siwaat mukk ci adduna na ko ñëpp ñaan te buñ ko ñaanee ci xasaay yi te muy positif bu wér. Mhm. man de aw ma sikki sàkk ci ne dana am. ci lu wér ci lu ndax kilifa gii nu digal. Mhm. man de xam naa ci moom tuuti. Mhm. tuuti xam naa ko ci moom. xam naa ne day hmm, cadeau bu nu yàlla jox la. hadiyatun min allahi subhanahu wa taala ilayna cadeau bu yàlla jëlee ci moom jox nu ko la. xam xam nañ comme déet nag. lépp lu ngeen gis muy digle rek. bu noppee rek njëriñul doomu aadama yëpp lay doon. Ah, lu ngeen gis mu digle rek bu noppee njëriñul doomu aadama yëpp lañ doon nan xool li weesu li weesoogul nan ci jàng man xaasa man lam yarau bi ma raa arau ma yatnu ilayhi maana benn waay bu ñuy wax ibnu Duraydin moo wax ne boo bëggee xam li nga toll ak li nga jëm seetal li nga weesu seetal ci li nga weesu nan seet ba fi Cheikh taxaa toogeeg léegi jéegu ba bu mu jéggi mbaa wax bu mu wax ba digal lu mu digalee bu résultat ba dikkee nu muy mel <laughs> yaakaar naa loolu ñëpp léegi xam nañ ko kon nag <laughs> uh-huh. lii mu diglee seet ba yàgg mu digle nañ def bisu xasaayit uh-huh. ah am na lu bari lu làmbu ci biir loo xam ne bu ñu ko xamee rek uh-huh. buñ noppee lépp sotti yàlla na yàlla defal nu lépp sottal lépp def ci jàmm ci réew mi defar réew mi Eh, eggale ko foo xamee dana fa eggale réew yëpp ci àdduna waaw fu réew di egg ci eggale àdduna ndax non ñun fii leen am amuñu feneen fii leen am amuñu fu daw jëm jëmunu fenn fii rek leen am kon nag nan fexe ba lépp suñ tubaa gi réew yi nekk réew meeg lépp rek sëñ tubaa moom fàggu na lépp yàlla na ko yàlla daal defal ci <laughs> bis bi wasalaamaaleykum waaleykum